mbokk yi asalaamaaleykum noo ngi leen di baaxee julli gu am njariñ gu bari ngëneel goo xam ne su guddi ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ci lañ koy julli ñaari rakka lay doon rakka bu ci ne fatiha benn yoon suratul ixlaas qul wallahu ahad ba mu jeex ñaar fukki yoon ci ñaar rakka yëpp boo sëlmalee nga julli ci yonent bi julli gu la soob rek fukki yoon allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim wala geneen julli gu la rek nga tànn ko julli ko fukki yoon kon kon lii rek la ñaari rakk lay doon rakk bu ci ne faatihatul kitaab benn yoon sóoratul ñaar fukki yoon ba sëlmale julli julli ku la soob ci yonent bi fukki yoon nga teg ci ñaan gi benn yoon allahumma inni asaluka bi mushahadati asraari almuhibbin wa bilxalwati allati xassasta biha sayida almursalin xiina asrayta bihi laylata assaabihi wal ashrin an tarxama qalbil xasin wa tujiba daawati ya akramal akramin benn yoon ngay wax ñaan gi boo noppee bu ko defee sun borom daa nangu sa ñaan yëpp yëpp yëpp tey bis ba nga xam ne dañuy rey xol yi yow da nga bokk ñu mucc ca loola sab xol kenn du ko rey kon nag lu mat def la ñu koy baax